sayyidina wa mawlaana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa al ghurri al mayamin mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mbooleem jaamu guñ ci def di nuyu ak di ziare sëriñ bi di ñaan yàlla mu yokk aw fanam te may ko wér-gu-yaram ba mu eggale mboolem naalam yi dañ ànd koog moom mbokk yi tey dañoo dellusiwaat ngir nafar lenn ci jikko yi nga xamante ni mel na ne sunu borom daf ko binde doomu aadama te doomu aadama war a tàggatu itam ngir lu ci jikko yooyu bañ a feeñ ci ay jëflanteem jikko jooju ñu ci tànn tey nag mooy mer doomu aadama nag danay mer ndaxte sunu boroom sax wax na ne danay mer moom itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam léeg-léeg daana mer moo tax nag mer moom nekkul ayib nekkul wopp itam waaye li amul solo daal mooy nit kuy mer ci ay neen wala gaaw a mer ndaxte dañoo wax ne laa yastaxiqu siyaadata illa xalim te lewet rek moo yeyoo nekk ab sang te mer ci la ko du defar ak dund te du defar ay te itam te menn mer mën naa yàq lu bari mën naa yàq ak dëkkandoo mën a yàq diggante ñaari way dencante mën naa yàq diggante ñu bokk bi mën naa yàq ak mbokk mën naa yàq diggante ay mbooloo mën naa yàq diggante ay réew ba ñuy xeex ci seen diggante وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله

وأشهد أن محمد رسول الله حي على السلام أكبر solo mooy nit koy mer ci ay neen wala nga gaaw a mer te mer ci lu ko jërut comme niñ ko waxee du defar ak dundu te du defar ay diggante te wax nañ fi itam diggante yu bari yi nga xamante ni men na mer mën na koo yàq diggante ay dëkkandoo diggante ñaari way dencante diggante ñu bokk ab liggéey diggante ay mbooloo mën a yàq diggante réew ak moroom ja ndax xeex boo fi gis mu jàppaloo wala ab xare bu am ci diggante réew ak moroom ja lenn waralu ko lu dul ay nit yu jiite réew yooyee te mënuñoo téye seen bopp ginnaaw bañ meree loola moo sookale guerre yooye ba mu am seen diggante te su fekkee nit ki xool na boppam ba gis ne mer ab xaaj bu am solo la ci ak dundam na ko wóor ne li muy yàq moo ëpp la muy defar kon kuy mer ci lu ko jërul la muy yàq moo ëpp la muy defar loolu la ñuy wax naan ida asbaxa alxadabu juz'an min xayaat l insaan fa inda idin yakunu maa yuxarribuhu akthara mimma yuammiru kon man mer mën naa yàq addunay merkat ba te mën na ko tàbbal sawara sax wala yaasu billah yonent bi alei salaatu wasalaam nag daana mer waaye mbiram boppam ak banneexam daawut tax muy mer laa yaxdabu li waaye wa kaana min wasfihi annahu laa taziiduhu siddatul jahli alayhi illa xilma ku ko masaa dënge moom yonent bi alayhi salaatu ba wax ko wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw loola du la ko delloo waaye da koy dolli ak lewet kon daana mer moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ci lu ko jar te la ko jar mooy bu ñu xottee xormay yàlla foofa rek la meram daan ame ta bu meree booba dana tar lool foofa la meram daan feeñe te julit bu nekk itam foofu la war a nekk moo tax sëriñ bu mag bi radiallahu anhu foofu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jaaroon la jaaroon bu amee ko naqari la ko daan naqari mooy bu ñu xottee xormay yàlla ndax ba ko noon ba dajale lay xaalis ba bam def ab takk mu jox ko ko ne ko lii mooy sa yàlla booba yëngal na sëriñ ba ba mer ba fab xaalis boobe na ko xërëb jóg wax ba itam yooyee ba ñaq tooy xip yad yi li moxnin karimin naafiin samadin laa di darahima tati min sulaytini sama loxo su ma ko dee tàllal kenn laa koy tàllal te mooy yàlla may aji doylu ka nga xam ne ku am moo jox mooy ku tedd ka mooy ka nga xamante ni mooy jariñ te kenn du ko jariñ mooy kilifa ga waaye du ma ko tàllal ngir jël ay dërëm yoo xamante ni as mbuur as àdduna laa koy jële kon mer ci lu ko jar te mooy buñ xottee war may yàlla loolu tax ñu wax moo tax abu hurayra wax ne am na waaj ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko tënkal ma loo may tuuti dama bëgg nga dénk ma yoonu yonent bi te dénk bi na tuuti yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko laa taxdab murni bi amalin wa aqlil qaala laa taxdab summa aada alayhi fa qaala la taxdab bam ne ko dénk ma te tënkal ma dénk bi bam tuuti ne ko bul mer wala bàyyi mer ngir xam gam xam ne la mer mën a jur abdullah ibn umar radiallahu anhuma itam moom ci boppam nee na waxoon naa yonent bi alei salaatu wasalaam ne ko tënkal ma lu lu tuuti lu ma mën a jàpp ba mën koo jëfe yonent bi na ko bul mer nee na ma mel na ku xeeb loola daal na ko teg ma dénkaat yonent bi delluwaat ca benn baat ba te mooy bul mer laa taxdab abdullah ibn amro itam wax ne am na bis mu laajoon yonent bi alayhi salaatu ne ko ana lu ma mën a xet li ci meram yàlla yonent bi na alayhi salaatu ne ko xanaa nga bàyyi mer kon soo bàyyee mer loola dana la musal ci meram yàlla tabaraka wa taala abdullah nu mas'ud itam nee na yonent bi alei salatu wasalaam masaloon na leen a laaj na leen lan ngeen jàppe ak mën a lan ngeen jàppe ak mën a ak mën daane ñu ne ñun de lañ ca xam mooy mbër ma nga xam ne su demee ca làmbu ja kum bëril daan la loolu lañ ca xam mu ne leen demewut noonu de waaye jàmbar dëgg dëgg dëgg mbër dëgg dëgg dëgg mooy ka nga xamante ni su meree mën a téye boppam walakin alladi yamliku nafsahu inda alxalab akrama radiallahu anhu itam la sunu borom wax ca laay fanweer ak juróom-ñeent ci ali imran ne wa sayidan wa xasura bam ko firee dane huwa sayidu alladi laa yaglibuhu alxalab mooy njiit loo xam ne mer du jiital waaye xelam moo koy wammat abu darda itam wax ne damaa waxoon yonente bi alei salaatu wasalaam ne ko tegtal ma jëf joo xamante ni ko fee danaa ca mën a tàbbi aljanna yonente bi alei salaatu wasalaam ne ko mooy xanaa nga bàyyee mer nga bàyyi mer moo tax boroom xam yu bari àddu nañ ci alxasanul basri dane yow doomu aadama na la wóor ne amul soro ndax boo meree man ngaa dem bay cëpp-cëpp di tëb di dal ngir doo mën a téye sa bopp te boo dee tëb di dal bis mën naa ñëw nga tëb far tàbbi sawara wala yaasu billah kullama gadibta wasibta wa an tasiba fa taqan fi nnaar moo tax sëriñ tuba radiallahu anhu ca masaalikul jinaan mu ne woon ama xamiyatun wa kasratul gadab wa xiddatun wa dayqu sadrin fa hiya min axlaaqi seytaanin layin aadana al muinu minhu kulla xiin nee na bariw tàngoor te day am ci nit ñi koo xamante ni dafay bari tàngoor bari mer ak bari xët-xët ak xatab dënn nee na yooyu yëpp benn amu ci solo ndaxte jikkoy seytaane la te jikkoy seytaane nag jër toroy kon koo gis mu koy ndamoo ci naan man dama bariw tàngoor wala man suma meree kenn du ma téye wala dafa dama bari xët-xët wala sama xol dafa sama xol dafa xat yooyu nee na jërta ndax boo ci tànn rek sëriñ Tuubaa nee na loola jikkoy seytaane la yàlla nañ ci yàlla musal mer nag am jeexit ju bon ju muy indi ci doomu aadama bay am na jeexit ju muy indi ci làmmiñ am jeexit ju muy indi ci yeneen cër yi am jeexit ju indi ci xolu kay mer bokk na ca jeexit ji mer mën a indi ci làmmiñu doomu aadama mooy nit ki su meree mën naa saaga te saaga bon lool mën naa wax wax ju ñaaw joo xamante ni moom ma mer su mer ma giifee buñ ne ko yaa waxoon lii mu ne wax ma ko kon ku nekk xam na ne mer dana indi jeexit ci làmmiñ ndax dana tax doomu aadama wax ju ñaaw ak saaga di génne ci làmmiñ te loolu jullit bu nekk war na koy daw mer itam am na jeexit ci yeneen cër yi ndax mer dana tax nit kiy doore dana tax muy tëj xar kanamam dana tax muy xotti ay yërëm wala muy xotti yërey kam mere dana tax mu rey nit dana tax itam mu mu mën a gaañ nit te yooyu yëpp nag ay jeexit la yoo xamante ni amul njariñ ndax dëgg-dëgg wa man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi jullit dëgg-dëgg mooy ka nga xamante ni téyal na mbokki jullitam aw làmmiñam ak loxoom du leen ca def lu leen naqari waaye su leen ca defal lu leen naqar itam day def ca sa aw loxoom aw yiw jëmee ko ci ñoom aw làmmiñam mu cay wax aw yiw jëmee ko ci ñoom ndax kooku merkat ba mën a dóore mën a tëj xar kanamam mën a xotti yëram mën a raye mën a gaañe mën naa fekk sax ngir meram ma loo xamante ni du dooma ma mu di ko wéq dóor sax mën naa fekk ab bool mu wéq ko ngir meram ma mën naa def yëfi yoo xamante ni ku àndut xelam moo koy def man naa fekk aw bàyyi ma sax mu koy saaga te xam na ne du ko tontu yooyu yëpp mer dana koy andi moo tax mer amul solo mer itam dana andi jeexit ca xolub kay mer ndax dana tax kam mere mu koy bañ te bañ ab julit baaxut dana tax mu ambal ko ak añaan dana tax mu nëbbal ko aw lu bon dana tax su fekkente ni musiba wala am natt wàcc na ca kam mere mu yéene ko ko dana tax itam kam mere su nekkee ci mbégte moom mu nekk ci njàqare dana tax itam kam mere fu mu gese gise ab sekkareem di ko tasaareel dana tax mu koy saboote te yooyu yëpp nag benn ci baaxut te mer ko waral ana kon nag lan mooy indi mer ci doomu aadama bari na waaye kon dañ koy tënk ji rëy ak yëg sa bopp ak bari kaf ak di saboote keneen te yooyu yëpp benn amu ci njariñ kon nag la koy dindi ci nit ki nag mooy safaan yooyu mooy troxlu ak xam ne yaag nit ñëpp a yem menn maam ngeen am muy aadama ak xawa te bàyyi kaf ju bari rawatina kaf goo xam ne ci ay caaxaan rek la te fopp sa mbir yëpp nag jéeme ko ci yi nga xam ne moo ëpp solo ci diine ji waaye bokk na ca yey dindi mer nag ngay xalaat ngëneel li nekk ci nëbbu mer ak tagg gi sunu borom tabaraka wa taala tagg kuy denc mer ci wal kaadimiina al xaysa wal aafina ani naas ak itam nga fexe ba ragal mbugalam yàlla ma tabaraka wa taala ndax itam di muslu itam waxtu nekk ci seytaane di wax auzu billahi min aseytaani rajim ndax seytaane kat dañoo wax ne mer mi ngi jóge ci seytaane te seytaane dañ ko binde ci sawara te sawara la koy fay mooy ndox kon nee na boo meree na nga jóg jàpp-jàpp mu sell julli ñaan yàlla mu dindi ko ci dindi ko ci yow kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan yàlla sa tabaraka wa taala mu yàggal fi sëriñ bi te may ko fan wu gudd ak wér ba mu àggal mbooleem na alam yi te ànd koog moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu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 الحمد لله الذي وجب حمده على ما أسدى وتعين شكره على ما أهدى فإياه نحمد وبوحدانيته نشهد ومنه نستوجب ما هو عائد منا لرضاه ونستمنح ما يحبه ويرضاه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده الأمي الأمين ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واجتهدوا في مخالفة النفس والهوى واحذروا عقاب من يعلم منكم السر والنجوى ألا وإن الأرض والليالي والأيام والأموال shahidatun ala al-abdi yawma al-qiyamati bima amila fiha wa alayha qala ta'ala yawma idhin tuhaddithu akhbaraha fa'malu amala man ya'lamu annahu raji'un ilayhi وتعرضوا لنفحات ذي العزة والجلال بالصلاة والسلام على الواسطة في سعادة الحال والمآل وأخلصوا النية فإنما الأعمال بالنيات wa innama likulli imri'in ma nawa الحمد لله الذي أمر عباده بالتقوى وصالح العمل ووفق من شاء وأضل وخذل والصلاة والسلام على سيدنا محمد داعي الرشد والفلاح وأصحابه الفائزين بغاية الهدى والصلاح أما بعد فيا عباد الله في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ومن أشفق من النار لها عن الشهوات ومن ترقب الموت صبر على اللذات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ومن أراد النجاة من الأزمات والوصول لأعلى المراتب وأشرف الدرجات فليكثر من الصلاة والتسليم على ملاذ الورى وشفيع المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرة واجعلنا يا مولانا من المرحومين ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا أحدا من الأشقياء المحرومين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 allahu akbar rabbana wa lakal hamd asalaamaaleykum.